Abdoulaye ñu ngi lay nuyu amaan mbégte dalal euh, ci waxtaan wi. fay naa euh, euh, ñu ngi lay fay Abdoulaye ca Guinée yëf yi daal dinay dox bu baax diggante démb ak tey ndax gis nañu ne jàmmaarloo jug na fa diggante takk der yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy farandow Cellou Dalein Diallo yi nekki noonu fii ci Ndakaaru ak sax ci Bruxelles ay bakkan rot ci ñu am ñu ci teg loxo ñeneen am ci gaañu gaañu est-ce yaa ngi doon xaar yëf yëf yu wëlbatikoo nii. Euh, du du luñ doon xaar dëgg dëgg dëgg dëgg euh, gannaaw bi nga xamee ni euh, gisoon nañu ni bii de moom la génn si tendance yi daal dafa leeroon nañ waaye nag ku xam Alpha Condé tamit waroon xaar di mel parce que moom. dafa nekk ci benn dynamique boo xam ne mi ngi dafa mel ni dafa bëgg fuqar ñi wala boog sax dafa war a fuqar ñi nga xam ni moo di tànneefu askan wi tànneefu askan wi ba nga xam ni Eh, jamono ji daal la ñuy gis daal tey na xel tey na xel ba nga xam ne euh, Ndakaaru gis nga manifestation démb am na si euh, buntu asambas ambassade bu boo demee yeneen dëkk dëkkaan tudd nga ko Bruxelles ak feneen ak feneen waaye la ci xew ci biir Guinée moo gën a ci moom dañoo toll si jamono joo xam ne euh, seetutuñu Massamba seetutuñu ma Demba xoolatuñu communauté internationale xoolatuñu CEDEAO xoolatuñu keneen ak keneen ña nga nekk di faat ay doomu aadama te et kan moo leen di faat moo di moo régime bi xam ne moo fi nekk moo di régime Condé kan moo leen di faat mooy police bi nga xam ne dafa ànd ak ak lëkkaloog ki nga xam ne mooy Alpha Condé si suñu seetlu si suñu gëstu parce que itam booy xool la ca faatu ay ndaw la yoo xam ne fukki at ak ñeent lañu am ay ndaw fukki at juróom ay ndaw fukki at ak juróom benn ay ndaw fukki at ak juróom ñaar ba nga xam ne ndaw yooyu amuñu sax âge bi nga xam ne moo tax at yi nga xam ne mooy tax ñu mën a dem ci mbajkaat ba wote donc dañuy jàpp ne rek bu fekkee ne Euh, euh, jaar ci kaw ay ay ay ay néew moo koy tax a euh, conserver pouvoir bi kooku nag moom xam nañ ko ci kii nga xam ne moo di Alpha Condé waaye nag gars dañoo war a jóg dañoo war a yëkkati kàddu dañoo war a wax dañoo war a jàkkaarloo ak moom wax ko mu dégg ni ko nag ah peuple guinéen bi de fu mu toll nii choisir na parce que tamit mënul mënul mënuñoo gis tendance yi nga xam ne boog dégagé wu na si premier tour bi si si si si jour élection bi ba si ba ëllëgu élection bi ñu wéy di gis li nga xam ne mu ngi euh, euh, euh, ñu koy ruumalaat te itam manifestation yi gis ko si diir bu gàtt daanaka fukki bakkan ak ñaar daanu si si xaw ma si ñeenti xaw ma ñetti fan donc dafay wane ne rek fu mu toll nii Guinée daal ka kay taal war ka taal te fu mu toll nii si yoon taal ko du kenn ki nga xam ne moo fa nekk jiitum réew jàkkaarloo ak ki nga xam ne amaana moom la Guinéen yi tànn su ma ñëwaatee toujours si tendance yi moo di Cellou Dalein Diallo. Mhm. alors Cellou dafa am taxawaay bu bees euh, bu mu mel ni moom la indi ndax bu ñu déggee waxam euh, ak euh, jëfinam depuis lors méngale ko ak xëy na yi passé dafa mel ni bi yoon moom dafa fas yéene ngooy ci ndam li nga xam ne jàpp na ni moom moo ko am ci élection bi ban jàngat nga def ci justement position bi mu indi ci élection bi. waaw si wàllu moom dañuy jàpp ne rek Cellou Cellou Dalein dafa jàng si ay ay erreur yoo xam ne def na ko euh, euh, si yenn élection yi nga xam ne parce que itam buñ koy xool deux mille quinze élection yëpp présidentielle mais laata li euh, euh, nga xam ne moo di seen i euh, commission électorale nationale indépendante di génne résultat provisoire mais mais waa Alpha Condé ak ay ak waa partisan mais dañoo génnoon di di di manifester ni ni ñoom gagné nañu au premier tour donc erreur yooyu nga xam ne def nañ ko te si ay élection ak ay scrutin yoo xam ne amul benn leeraange damay jàpp ne kon boog si jamono jii seetlu dalee jàll jàng na jàng joo xam ne dina ko permettre tey jii comme ni mu ko defee mu defee ko noonu am na yoo xam ne ne stratégie la am na yoo xam ne dinañ ni politique la waaye ñaar yëpp boo ko boole itam dafa nekk démarche boo xam ne démarche responsable la par rapport ak kii nga xam ne hmm. dafa bokkoon ci élection présidentielle ba pare génn ba pare ay tendance woon ko par rapport ak ñoom procès verbaux yi ñu am ay nitam am ko ay ñoom am ko ay observateur am ko ay analyste am ko donc lépp dafa wane woon effectivement que ne kenn génnul ci élection présidentielle gagné ko ku dul Cellou Dalein Diallo mm. donc erreur yooyu mu defoon ba baax ba baax ba tax ñiy jël ko def ko porox ndollu gën a manifester moom loolu la de te defe naa kooku lool noonu mënuñ ko see condamné ba koy mettre en résidence surveillée forcé parce que police boobu ba léegi bu mu defee déclaration boobu ba léegi police encerclé na këram mënut génn mënut dem euh, moom si boppam def na euh, tweet joxe information bataaxal boo xam ne wax na ni police si boppam pour force de démo force de défense et de sécurité laa wax. ak gendarmerie di waa di di tasas di pasas pasare bureau di ko toj di ko rajaxee donc mu nekk mbir mu ñaaw mais kan lu tax ñu war a a tere nit mu mu manifester victoire parce que tendance moom dafa leer. Hmm. damay fàttali ni fii euh, Sénégal jege sori euh, jege jege na gën a ñoo hmm. euh, en deux laata observatoire national des élections di ONEL di joxe résultat second tour yi Abdoulaye Wade commencé na jubilé mhm. lu tax lu tax mu commencé woon jubilé parce que tendance yi nga xam ne ak résultat yi nga xam ne médias yi daan na ko doon na doon nañ ko joxe woon mhm. dafa wóoroon ni sax mooy mooy gagné gannaaw googu Abdou Diouf dakaa félicité ko 2012 yàggul euh, ki nga xam ne moo di Macky Sall candidat dix huit heures dix neuf mi commencé nañu jubilé mhm. moom si boppam mu def déclaration laata Sénat commission électorale nationale euh, autonome di def li nga xam ne moo di publication résultat provisoire mhm. donc buñ ko gisee si keneen euh, à côté muy voisin muy Cellou Dalein Diallo fële ca Guinée donc warut mën a bett kenn parce que itam tendance moom dafa leer te tendance li mu war moom ñëpp xam nañ ko. d'accord léegi bu Cellou Dalein Diallo euh, dalee ni mu ko defee ci kaw CEDEAO ŋàññi leen ndax mi ngi ci dëgg. waaw mais mais CEDEAO lan mooy taxawaayam CEDEAO CEDEAO communauté économique des États la pare lan mooy taxawaayam dëgg dëgg dëgg dëgg si lépp li nga xam ne moo di contention ak contention bu moo mun ci doon concernant justement li nga xam ne mooy état mooy état membre yi lu tax parce que itam euh, euh, euh, mënuñoo comprendre ñu nekk di faat ay doomu aadama CEDEAO na teg ñu nekk di di rajaxe di toj ay yëfu jàmbur CEDEAO na teg ñuy dëgg ci ay doomu aadama ñi CEDEAO na teg ñay gaañ ay gaañ yu bon ak ñuy ay ay doomu euh, CEDEAO CEDEAO na da teg dafa mel ni kon bokk CEDEAO bi du CEDEAO des peuples waaye CEDEAO goo xam ne la kuréel la goo xam ne ku nekkal ni mu lëkk nekkal lëkkalool ñoom ñoo ko bokk mu naan syndicat lu tax loolu parce que itam yàggul tuuti ca Mali euh, population bi dafa génn ànd ak société civile bi di manifester ne kii nga xam ne mooy Ibrahima Boubacar Keïta bëggatuñ dem na ba intervention ñooñu CEDEAO bu mu euh, toqal na ay rango jooy euh, vraiment wane ni vraiment moom bëgg na euh, juboo waaye ba ñu defee pression moom xamoon na ne bu baax ni Mali bokkatuñ ko dañoo def lan li nga xam ne mooy coup bu walbatiku nañu président yenn yi comme ku mel ni Alassane Dramane Ouattara nekk si yoonu moom tamit taal li nga xam ne moo di Côte d'Ivoire ndax forcé troisième candidature war a jël li nga xam ne moo di ngànnaayam doole imposer ko pour nga xam ne euh, IBK dina mën a dellu euh, ginnaaw mm. président Macky Sall kese moom moo taxaw ne loolu du xalaat te loolu du doxalin loolu du jëfin nañu xool neneen nañu war a mën a waxtaan ba nga xam ne jàmm ni dafa mën a la ca am ba am ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg booy xool CEDEAO da ngay xam ne président yi seen wàllu bopp Euh, ba léegi ñu si bari bokk dañoo mel ni dañoo am complicité ak li nga xam ne moo de Alpha Condé parce que itam kay kay ka nekk di forcer troisième mandat wala am xalaat ak mébatu def troisième mandat munoo intervenir carrément ci li nga xam ne moo di problème parce que mm-hmm. Guinée lu mu nekk di dund Côte d'Ivoire moom la nekk di dund parce que dañoo defagul élection ay doomu Côte d'Ivoire di faatu mais alors quel est le rôle véritable bi nga xam ne CEDEAO war na koo am mu nekk CEDEAO des peuples parce que itam tey jii nii booy wax ci Guinée may wax ci Guinée wala di wax ci beneen dëkk parce que c'est normal yow moomu ak man mi dañoo yor carte d'identité li nga xam ne mooy carte d'identité CEDEAO donc lépp luy xew biir CEDEAO ak fépp fu mu xewee ci biir CEDEAO daf ñuy interpeller daf ñuy concerner te daf ñuy pousser pour ñu ñu xool itam fan nañu war a mën a féete li nga xam ne moo di dëkk bi hmm. gis boo buggee verser dans cet équilibrisme déséquilibré déséquilibré da ngay da ngay da ngay nekk da a da ngay verser sax dans le nihilisme absolu par rapport ak l'analyse par rapport ak commentaire bi. Mhm. moo di comité international bi moo di CEDEAO moo di union africaine dañoo war a yëkkati kàddu comme ni ko ambassade américaine eh, eh, eh, li nga xam ne Amérique def na ko si bataaxal wax ak kii nga xam ne moo di Condé waaye ñoom ñu gën ko dëgëral ndaxam xam CEDEAO la ñu gën ko dëgëral nga xam union africaine la parce que Condé moom Guinée kon de moomut CEDEAO kon de itam dafa war a xam ne euh, mbir boo ko boo ko yoree dafay am benn moment boo xam ne àla kolaal di ko ñàkk si ay jongante te jongante nañu dem nañu si ay élection guinéen yi bokk dem nañu seen tànneef par rapport ak toujours damay ñëwaat ci loolu tendance yi nga xam ne njëkk na génn te tendance yooyu nu mu génnee woon ak nañ ko waxee woon dina ma bett lool ki nga xam ne moo di Alpha Condé war a mën a génn nekk président war mën a génn gagné li nga xam ne moo di au premier tour ak pourcentage boo xam ne pourcentage bu am solo la bu fekkee ni noonu lay demee rek dañuy njort ni am na loo xam ne lënt lënt la dañuy njort ni am li nga xam ne moo di foqar ni maanaam li nga xam ne moo di ndamu askan wi te ndamu askan wi ñëpp xam nañu mu mhm. fekkee ni toujours tendance la mu wane woon nag loolu la wéy wane. d'accord bu fekkee Alpha Condé nag dafa bëgg a dem ci euh, logique bi mu nekk maanaam mooy ci nguur gi euh, jël Cellou Dalein tënk ko CEDEAO itam wéy ci tekkaaral gi gën ëllëg nga gisal euh, Cellou Dalein Diallo njiital UFDG bi nga xam ni nag nekkatul xale ku làq juróom benn fukki at ak juróom-ñett ci wàllu politique di xëccoo xëy na boo ci jotul bi la yoon beneen yoon dina mën a doy waar. ëllëgu seetlu ci Guinée waaw euh, effectivement dëgg la naam seetlu seetlu fa mu toll nii dafa war a li nga xam ne moo partition maanaam li nga xam ne moo di moo di moo di moo di moo di si euh, élection bi te naa ni mën koy si kàddu mën koy def si jëfin mën si li nga xam ne moo di doxalin ba nga xam ni si wàllu boppam dafa war a di wéyal combat bi maanaam xeex gi muy xeex dafa war a wéyal war a woo waxumala ay partisans ak ay sympathisants ki nga xam xam ne moo di pour mu défendre li nga xam ne moo di démocratie pour mu li nga xam ne moo di résultat yi waaye nag lépp si si si li nga xam ne moo di dal donte xam nañu ni ka ka mu jàkkaarlool kooku noonu moom euh, daanaka ak ak police am ak gendarmerie bi lu ñu ba léegi mooy dal si set ay doom mooy faat ay bakkan mooy gaañ ay bakkan mooy li nga xam ne moo di tëj li nga xam ne moo di ay doomu Guinée waaye itam war na mën a toog yëkk di kaddu ba nga xam ne CEDEAO dina ko mën a dégg li nga xam ne Union africaine na ko mën a dégg ba nga xam ne euh, euh, comité international dina ko mën a dégg ngir lan ñu ànd ak moom jàkkaarloo pour mën a fexe ba nga xam ne démocratie dong képp rek. kese mooy sax fi nga xam ne moo di Guinée parce que Guinée soxla na ko CEDEAO fépp fu mu mënti doon soxla nañ ko parce que ñun dañoo bëgg ay dëkk yoo xam ne dëkk yu stable pour mën a xeex gën a mën a xeex li nga xam ne moo di terrorisme bi gën a mën a développer suñuy ay koom ay koom-koom la ay koom-koom yu sonn mm-hmm. ba nga xam ne da nga maam CEDEAO si benn kàddu si benn yoon ñooñu dinañ mën a àndandoo tabax ko am dëkk yoo xam ne dina am koom-koom yu wóor waaye tant ñu nga am président yoo xam ne dañuy tripatouiller seen i constitution di imposer troisième candidature dem joŋante ñàkk ko ba pare bëgg ko def coup d'état putsch électoral da nga maam si guuta rek la ñuy dëkkee jàpp naa ne Sénégal euh, Gambie gis nga ko bu mu amee li nga xam ne moo di putsch électoral Yaya Jammeh bëggoon ko fa imposé Sénégal dafa dem wuti benn mandat boo xam ne CEDEAO moo ko jox ak li nga xam ne Nations Unies mu ànd ak l'armée koo xam ne l'armée wu CEDEAO la mu dem dë dë dë dëjëdi tëccati li nga xam ne moo di Yaya Jammeh installé ki nga xam ne moom la Gambien sa tànnoon mu di Adama Barrow ba tax na dafay nekk ay exemple ak yeneen exemple waaye damay jàpp ne rab war nañu mën a wax ak ki nga xam ne moo di Condé par rapport ak démarche bi nga xam ne démarche vraiment autoritaire la démarche autocratique la démarche véritablement du ma ne du ma ragal sax ne démarche dictatoriale la parce que itam na muy doxalee boobu ba léegi lay la faatu si doomu Guinée mais ëpp na dayoo te jege na dayoo. Mhm. jërëjëf Abdoulaye Mbow ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM ngir waxtaanee surtout situation Guinée bi nga xam ne mi ngi wéy euh, di jur njàqare ci gëtu ñu bari ndax fitna ga fa tàmbalee yeewu te résultat yëpp wàccegul ñu signalé ko ñeenti circonscription rek lañu joxe euh, mu jox euh, tendance favorable kii di Alpha Condé kon yeneen yi bu génnee mel noonu. njortu nañu ne fitna gi dana gën a yokk ndax seetloog ñamu àndal ñoom biir na leen ne ñoom ñoo jël ndam lii du ñàkk dinañ am yeneen jotaay gën a waxtaan ak yow ci mbir mi en tout cas ñu ngi rafetlu bu baax a baax euh, sa gis-gis euh, ci mbir mi leer na macha allah Mbow jërëjëf jërëjëf